asalaamaaleykum sunu mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant waa tey nag dañoo ñëw fii ci Rufisque fan festival kan Ibrahima Mbaye Sopé muy keppaaru maam tey nag di septième édition kon nag damay ànd ak sama caméraman rek mu topp ma ci biir am na ay surprise yu doy waar topp ma rek yow. waa ñi ngi nag ak benn actrice benn comédienne ñu xam ko ci ban tur Awa Diga Kane kenn dootu ko présenté mi ngi toj fa tour nekkoon ci ban série c'est la vie tata Awa ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay Adja Thiam sama doom. waa tata Awa sa sañ lan macha allah. Dia du ma ko oyofal rek chéri damay jàpp yow laay jàppale gisoo sunu couleur yi li mu joxe. waa ñu la doon laaj euh, Tata lan moo waral sa teewaay fii ci festivalu Keparu Maam euh, septième édition ñu gis ni Dîner de daal ñu bëggoon xam sa relation ak Ibrahima mbay Sopé. waaw relation euh, jigéen ak ak càmmiñam relation euh, on va dire mentor parce que euh, ñoom je pense ñoom ak ñoom Leyti ak ñoom Babacar Mbaye ak ñoo ñëpp suñuy mentor lañu donc dafay neex nga bokk ci seen i invité ci moment bu toll nii ci septième édition c'est ma première fois nag yow yaa am exclusivité bi ma ñëw ci keppaaru maam vraiment muy une chose extraordinaire mais man duma ma waxagum ci soirée de gala bi sama coup de cœur mooy euh, visite bu ñu def tey mag ah parce que euh, ça m'a ça ça m'est allé droit au cœur parce que nit nit rek nga mën a doon et j'ai vu l'émotion j'ai vu la solidarité bi nga xam ne moo am ci acteurs yi ci ci comédiens yi ñu dem fekki seen i morom ñi nga xam ne dañ leen di seetaan man j'étais surprise de voir que tout le monde me suivait donc ma koy sant yàlla bu baax a baax a baax mais Ibrahima mbay moom mention spéciale lañ koy wax parce que def événement c'est pas évident bu la yàlla wërsëgalee nag nga def ko ba mu réussir dañuy wax alhamdulilah di xaar huitième euh, édition bi incha allah te yàlla bu kenn manqué ci barke Seydina Mohamed. merci léegi Tata Awa nan nga gisee euh, dîner de gala bi. waaw muy innovation je pense innovation la ça va être la première fois je pense ci keppaaru maam muy lu lu rafet. parce que y' a certaines choses dañuy yaakaar ni il faut avoir de gros moyens pour nga def ko mais du loolu affaire bi xale yaa ngi fii xarañ nañu bëgg nañu donc euh, bu ñu leen mettre dans les conditions rek dañuy def lu mel ni mun naa ne ba dee ñëpp bëgg. est-ce que mën nañ xam Tata Awa Diga Kane ci yan projet la nekk. waaw maa ngi ci projet yi euh, Vautour mu ngi daw déjà actuellement ñu ngi am quelque finitions bi ñu war a def maa ngi ci Salma aussi mu ngi daw sur la TFM bu dee du publicité et aussi j'ai d'autres projets yi nga xam ne maa ngi en cours mais euh, amaguma droit wax si mais bu ma ko naree wax yow laa koy njëkk a wax ndax sama doom nga waaw. merci beaucoup merci ma chérie mais sa sañ sa mais dama ko oyofal mais Adja yow it yaa ngi def lu nice na la yàlla jàppale. merci taxaw ak naan bu rëy comédienne bu rëy ñu koy wax kan Bintu Thiam mu interprété rôle bu doy ci famille sénégalaise Bintu maa ngi laa nuyu. maa ngi lay ziare di nuyu ami internautes yi nga xam ne ñooñu seetaan di leen nuyu di leen ziare bu bare bare bare bare. waa ñu gis sa taxawaay ci festivalu Keppaaru Maam ren di septième édition ñu gis yaa ngi ci hôtesse yi yaa ngi ci liggéey bi est-ce que mën nañ xam sa relation ak Ibrahima mbay Sopé. amee wax Tëngéej wax Ibrahima Mbaye Sopé. ku ma xam-xam ne man Tëngéej laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo fi laa jàngee art travers ñi nga xam ne mooy Ibrahima Mbaye Soppe Omar Sis ak ki nga xam ne mooy tonton Mamor ak ñi ñu bare baree bare bare ba su ma limee damay juum ñooñu ñoo tax peut-être ñu xam ma ci li nga xam ne ni moom mooy milieu cinéma bi Képaru Maam du loo xam ne lu bees la ci man depuis ba mu dooree ba léegi man ak ñoom la mm-hmm. kon du loo xam ne lu bees la ba septième édition bi tey macha ñuy ñaan mu nekk a édition édition édition ñu koy def année yu jot te aussi ñu fi ñëw ñu ñaan heure bu ñu fi ñëwee rek ñu kontaan. <laughs> waaye est-ce que mën nañ xam rôle Binta Thiam bi ni nga ko interprété daal nan la demee ak waa Pikini production. ah mais comme d'habitude ni ma koy waxee rek ah, rôle Binta Thiam bi comme man comédienne la rôle moom xam nañ ne su ñëwee dañ koy teg ci yoon rek ñaan ci yàlla def ci ndam def ci barke ba nit ñi comme rôle bi. ni ñu ko joué mooy Bintu Thiam sénégalais yi accepté nañ ko mooy sama première sorti ci produit bu mag ci télévision ak ci réseau yi kon nit ñi bëgg nañ ko di ñaan rek mu gën a yokk tubaarikàlla <laughs> li nga wax mooy sa première sortie mu génn nit ñi bëgg ko sénégalais yi bëgg ko mais lan nga ci dund loo xam ni metti na la ci rôle bi ah non non non pas Bintu Thiam dundu naa ci lu ma metti comme li ma koy wax rek man comédienne laa mooy sama profession moom laa am moom laa jàng moom laa xam su fekkente ne damay joué benn rôle mu métier ma bay boo ma jël sama bagage ma dem toog mm-hmm. parce que sama métier la en fait boo gis am na metti am na neex nañu ñaan yàlla rek def muy neex liy neex ëpp li di metti mm-hmm. loolu la ñuy ñaan yàlla. mais mosoo génn dox nii ba ci mbedd mi nii am ku la ci wax daal lu kii parce que tamit rôle bi ngay interpréter tamit dafa xaw a doy waar ñaareel bu féroce. mu doy waa amee garaawul loolu loolu loolu ci ci milieu bi la bokk ci la bokk c'est pas que ñun lañ ko mujjee def mais suñu ay papa suñu ay maam soo dégloo seen interview yu ñu daan def avant dañuy wax ne kat ñoom def nañ leen lii def nañ leen lii def nañ leen lii à travers rôle bi ñu joué kon ñun suñu ko amee sant yàlla la parce que nit toog ci téléem wala yor téléphone am mu gis Bintou Thiam mu joué benn rôle ba moom su gisee Bintou Thiam da koy jéppi wala da koy bëgg a yéene saaga wala koy bëgg a def leneen kon c'était kon fierté la en ci ñun ñi nga xam ne ñu ñoo def produit boobu li wax mooy que ne produit bi réussir na produit bi jàll na comme produit bi peut-être liñ ci doon ut am nañ ko ci c'est ça su ñu gisee nit mu mu génn des fois man boog li may wax di nga gis des fois moo am ay baa mais des fois da ngay gis nit ñi lay bëgg mooy ëpp sax ñi lay wax leneen. la xaar ci lan. waaw mais lan mooy sa projet lan. ah waaw comme dañoo gisoon première saison wu famille sénégalaise ak Pikini production xaar leen ñu rek incha allah ci li nga xam ne nii moom mooy deuxième saison wu famille sénégalaise ngeen gis lu doy waar lu jéggi dayoo lu neex a neex a neex a neex a neex loo xam ne nii incha allah su génnee dina doy waar lool lool lool lool lool leen ñu lu baree baree baree baree baree tey nag yéen a ñëw Keparu Maam Keparu Maam festival boo xam ne benn yoon lay am ci at bi te fii lay amee fi nga xam ne mooy tëggee. mais sañse nga de xam nga ko macha allah. waaw ah mais hôtesse yi la xam nga man maay présidente tamit te présidente day def ba mu baax sama xale damaa bëgg nga jëlal ma benn par benn nga xool lu ñu def lu ñu sañse di jaajëfal fans yi di jaajëfal ñëpp di leen jox dig daje beneen yoon incha allah. <laughs> macha allah. dañuy doomu aadama mu war a xam ne ne rek joomul kenn. waaw joomul kenn daal waaw ñu leen di ñaanal rek euh, ñi caabi féetee ginnaaw yëpp. ñu bàyyi leen incha allah ñu fekk seeni i famille. est-ce que mën nañu xam lan moo la gën a marke ci festival bi. regroupement wu artistes yi moo ma marqué. parce que man démb dama ñëwoon pour delluwaat Dakar. dama ñëwoon juste pour fekkee ouverture bi dellu Dakar et bi gis regroupement wu yi 2 heures du matin laa loué taxi dellu Dakar jël sama ay bagages ñëwaat pour loger. waaw parce que dafa rafet dafa nice macha allah ñëpp dañoo boole nekk benn. waaw ñëpp ñëpp wàccee seen bopp waaw loolu moom a fi neex ndax man moom na yomb rek man bëgguma dara lu metti jàmm rek waaw. macha allah mais euh, est-ce que lan lañ mën a xaar comme projet. ci dina nañ xaar rek duñ naan kuy yoddoo sa kër du dëgg. waaw nañ xaar rek incha allah. ñëpp yaa ngi ci daal yaa ngi ci. Ah, doo ñu ko dee rek doo ñu ban télé la war a daw ban télé. non non non sa copine laa dee ma ko rek. maa ngi infidèle actuellement maa ngi infidèle man bëgguma di mélanger ay projet j'aime me concentrer sur quelque chose. Mhm. te macha sama maison de production kenn du ñoom Evenprod ku leen xamul dégg nga leen. Mhm. du dëgg waaw euh, liñ naan nag euh, feccum liir bu neexee. waaw ndey jaa jàpp ci ca mbagg ya te ñoom ndey lañ ci man parce que tey bu ñu xamee dina euh, alias Anta ñoom ñoo tax. Mhm. ba pare ñu liggéey ci man ñëwoo rek tourné da ngay ñëw ñu jàngal la lu bëri dama ko jàng ci ñoom na jàngoon naa feneen mm-hmm. donc euh, pour le moment daal ngi ci ñoom waaw duñ ma a gore ok euh, personnage yu Anta lan nga joué loo xam ne dalaa marqué viol bi viol bi waaw bi moom mooy li ma gën a marqué ci li ma joué yëpp parce que dama ko pare mënu ma sax arrêté jooy mm-hmm. dama xalaat jigéen yëpp yi nga xamante ne dund nañ loolu mu metti torop waaw góor yi war nañ am yërmande daal góor bu nekk war na xoolee jigéen doom war na ko xoolee yaay war na ko xoolee tànt war na ko xoolee cousine sœur jabar ba doo ko def lu metti waaw parce que yàlla dafa dafa gërëm jigéen bëgg jigéen góor bu teral jigéen rek yàlla da lay teral dañ ñu wormaal te yërëm ñu xam ne ñoo war a jàpp ñoo war a nekk suñu ginnaaw ñoo war a nekk suñu wéeruwaay xam nga Anta benn personnage la boo interprété ci infidèle est-ce que mosoo génn nit wax la lu kii parce que rôle bi nga ci interprété non nag man par contre pour le moment ba léegi nii j'ai la chance que nit yi tooñ ma la ñuy gën a def que manque de respect wala quoi que ce soit wax dëgg fa neex yàlla parce que aujourd'hui mën nañ ne Sénégal mën nañ ils arrivent à faire la différence entre le personnage et la personne voilà pour le moment de ah amaguma ci amaguma ko te yàlla moo ko am waaw. <laughs> macha allah kontaan na. ñoo la gën a kontaan mais ba xam nga ni da ngaa waa def bu ndaw rek jàppale sama sama sama papa rek waa gis nga. <laughs> nice macha allah. bàyyi ko mu ñëw. dañu ñëw gis monsieur gis madame Thiawet Ba macha allah yal leen yàlla la fa jàtt Dani est-ce que mën nañ xam sa relation ak Ibrahima Mbaye Sopé. waaw euh, maa ngi nuyu ñëpp euh, sama relation ak Ibrahima Mbaye Sopé dañu yàgg sama xarit la sama frère la ñooy ànd. Euh, dëgg ko lal waaw moo tax ma bàyyi lépp depuis euh, bi ñu préparé festival bi ba maa ngi fi euh, ma waral lool. mais lan nga gis ci septième édition bi. waaw sant yàlla sant yàlla yàlla lañ koy dem ba naan ko bi mooy centième bi loolu la ñuy ñaan yàlla ndax normalement bi mu war a nekk neuvième bi. mais deux ans yi nga xamante ni Covid bi moom moo moo moo moo taxoon deux ans yi defuñu ko moo tax ñu ne bi ma septième bi mais septième bi sant yàlla li tax sant yàlla mooy euh, fu artiste nekk ci àddina euh, maanaam fu artiste nekk ci ci ci Sénégal ñëw na ba ci international ren la ñuy wax euh, keppaar maam international ren parce que national la woon mais ren moom macha allah doon na international parce que marocain yi ñëw nañ. guinéens ñëw nañ américains yi ñëw nañ kon euh, mën nañu international la di dooli sant yàlla bu baax a baax a baax ba mu yokk gën a doon gën a doon international incha allah. ok mais dañoo gëj a gis Dany ci écran yi lan la. waaw mais reculer pour mieux sauter xam nga ñun ñu ngi ci ba tey da ngay nekk ci benn wala nga def ay production yu bari ñu nekk ci montage yeeg négocier yi demee noonu moo tax. Euh, may gëj a ma gëj a feeñ mais maa ngi ci te maa ngi ñëw incha allah soob yàlla. pour kon mën nañ jàpp ni Dany mi ngi ci liggéey. waaw moom mi ngi ci liggéey bu baax a baax a baax a baax waaw am na luy ñëw nag pare leen ko mi ngi ñëw incha allah. ñi ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw incha allah. soob yàlla. macha allah macha allah sañ se ngeen. sañ maaleykum salaam doom ba yaa ngi ci jàmm. sant yàlla ba alhamdulilah waaw mën nañoo xam sa teewaay fii ci festivalu Keparu Maam lu ko waral. ndeysaan di bëggee ñëpp. Mhm. di leen ziar tamit sama Keparu Maam li tama ñëw fi ah cool cool yi soppe la. Mhm. bëgg na ñëpp artiste bu mën li muy def. Mhm. waaw. mu invité ma rek ma def fi teew ndax man musuma ñëw festival c'est la première fois tey jii ma ñëw festival wante ni ma gisee artistes ni nekk benn booloo bokk ndey bokk bàyyi ñoom ñëpp dëgg yàlla macha allah ku ci gis danga koy def na sa bopp waaw ma kontaan si loolu tamit am si mbégte sama xol sedd guy waaw kontaan naa daal. mais ba xam nga ni da ngaa sañse ba xeeboo li nga def. déedéet kay dama sañse. macha allah sama dama doon foo de. ah waaw réussir na waaw kii moom kenn doon ko présenté ci àddina ci réew mi la grande comédienne la grande art actrice ñu koy wax kan Khoudia Fall instant yi nii mi ngi toj jabar Khoudia ziar naa la Adja maa ngi lay fay dafa yàlla waa Sénégal <laughs> mais Khoudia yow da nga sañse barki yàlla billaahi dama oyofal nee rek ah non non ma ko xeeb nag. parce que doo la yamul <laughs> waaw waaw doo <laughs> mais Khoudia mën nañu xam sa relation ak Ibrahima Mbaye Sopé. bon Ibrahima Mbaye Sopé suñu relation ak moom mooy relation entre frère et sœur. relation entre comédien ak comédienne wax dëgg yàlla mu nekk suñu frère. nekk ku baax nag euh, ku ku ku humble sax ku macha allah daal Ibrahima Mbaye Sopé booy wax ci moom fii ba suba daal doo fa jege vraiment wax dëgg yàlla. waaye nan nga gisee dîner de gala bi. bon nice ah. xale yi sañse nañu bon ñun jégg ndaw gi sañse nañu. macha waa gis nga def nañu daal li mu laaj franchement. ok waaw léegi Khoudia ci yan projet la nekk. bon Khoudia moom xam nga moom mu ngi nii rek toogu fu pour benn nit ku ko soxla contacter ko mais nag boo may contacter da ngay ñëw Arcos pikin mhm. mooy sama base fa laay nekk. ku ma soxla ñëwal foofu ki sama président Leyti Fall ñu liggéey def ko nu mu gën a rafetee rek ak ci ñu daal di ñaan lañ ci jàmm ak salaam. macha allah kontaan nañ ci yow maa leen gën a kontaan. waa sama wet damaa am caterpillar xew lool nag di toj koor yi. macha allah ak yeneen ak yeneen may gis tamit aussi. ngay def ay message yu ay message yoo xam ne société bi ni ñu war a dundee et di jox conseil jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci couple li ngay def liggéey bu nice maa ngi laa ziar ay safaar. maa ngi delloo ziar Adja Thiam. mais yéen sañ ngeen daal. <laughs> dañoo def yëfu mag rek xeeboo leen ko. mosuñu ko xeeb. waaw nan nga gisee festival bi septième édition bi. waa xanaa kontaan parce que li may wax naan festival bi moom retrouvaille la. Mhm. Euh, dañuy wane ne ñun artistes ñun ñëpp benn la ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mm-hmm. ku ci gis sa moroom da ngay kaf dangay ngay ree. Mm-hmm. stress boo fi indi fi nga koy bàyyi bu soobee yàlla ndax kaf ak mm-hmm. ree. incha allah noonu la. lan mooy sa relation ak Ibrahima mbay soppe ndax fu ñu gisee soppe gis sa waa groupe Pello lan la man dama bëgg a xam lan la daal. waaw Ibrahima mbay soppe suñu góor la suñu xarit la suñu lépp la. ndax Ibrahima mbay Sopé boo nee Ibrahima Mbaye Sopé yaakaar naa da nga naan ay cheval mm-hmm. ndax ba ñuy xamante dafa yàgg mm-hmm. du tey mm-hmm. kon man Ibrahima li may naan ñun ñun waa Pelloo sax laay wax mënuñu ko fay ndax koo xamul ni koy def namu la dafa tax loolu moo waral suñu teewaay fii tey encore ñu ñëwaat tamit di feddaliwaat suñu kóolare ci suñu diggante ak ki nga xamante ne mooy suñu président Leyti Fall ndax kooku moom kenn mënu ko fay daal. tey lu nekk ci ñun rek moom la. Mm-hmm. Mm-hmm. tey su ma demee ba ñemee bay def samay vidéo li ci réew mi. Mm-hmm. ba ku ci nekk dima ci woo partout dans le monde ma ciy sant yàlla nag c'est grâce à moom. parce que li ci réew mi lépp ci la bokk. sëyu xale yi. jeeg li ci réew mi daal. waa dama tourné gis fi première dame. Marème Faye Sall. ñu koy wax yaayu ñaan ko aussi euh, mama <laughs> lu waral sa teewaay ci festival Keparu Maam alors <laughs> ah, sunu teewaay ñu ñëpp xam nañ ko ajaa Thiam ah donc dañoo ñëw juste taxawu sunu mbokk boo xam ne moo xewle muy Ibrahima Mbaye Soppe am nga muy ay festival boo xam ne mi nga ko yàgg di def muy ay festival yi festival festival tey nag ñu nekk ci septième édition bi xam nga mu ñëwoon rek wax ñu te li ñu waroon mooy ñëw fi teewal ko ba bis bi jàll ak jàmm ak salaam incha allah. ok maman lan nga gis ci dîner de gala bi. waaw man je trouve que c'est une innovation ah innovation la parce qu'on n'avait jamais eu festival boo xam ne ni dîner de gala lay termine en fait. au au au temps dañ naan euh, gis ne euh, chaque samedi dañuy def ay spectacle nit ñi ñëw jouer xam nga def seen li nga xam ne nii tegal ma foofu sama plat bi def li nga xam ne nii ay prestation lay doon soit ay one man show soit mu nekk ay loo xam ne nii ay nit ñoo ñëw di ko joue sur scène xam nga loolu lañu ñu amoon habitude di gis mais tey bu ñu demee ba def ko dîner de gala alors la chapeau à Ibrahima Mbaye Sopé vraiment c'est une innovation. léegi mën nañu xam première dame instant yi nii ci yan ci yan kii daal la nekk ci yan projet. alors xam nga li ñuy wax rek ku ñëpp xam foo jëm doo gaaw a egg. c'est sûr que maa ngi ci ay projet projet yoo xam ne c'est pour le bien-être des des des des téléspectateurs projet yoo xam ne pour li gën la projet boo xam ne mooy ñoom li ñuy laaj li ñu soxla te namm ko te incha allah dinañ ma gis yeneen facette daal incha allah. kon nañ ko xaar. waa ñu toog ak artiste bu mag comédien bu mag mu dëkk fan Thiès Gueye Teranga kenn dootu ko présenté ci réew mi Gueye Teranga nuyu naa la. may ma ma naan tuuti boisson. man lu tax waa Thiès man comique Gueye ñan ñoo la war a summi. Euh, sekkeen yi la ak jaween yi mais tu te fait très belle. waa Gueye Teranga est-ce que mën nañ xam sa relation ak Ibrahima Mbaye Sopé. dafa yàgg. xanaa xamoo tey suma ma juuma su su ma goree dee sax dama naan man rek ma la sama xarit mhm. mais yàlla def na ni goree dew ma mhm. soppewu Sénégal la di sunu xarit <laughs> waaye di kontaan am mbégte ñëw teew ci festival Keppaaru Maam parce que première édition bi nii gu soppe lañ doon fanaan mhm. dem si yàlla ji Ibra sunu papa Sidi Niang am di mignon mii toog ñëpp ak Diop mu neexoon trop ba tey ñuy feete suñu septième édition alhamdulilahi rabbil alamin mais mën nañu xam euh, sa ban ban yëg-yëg nga am ci diine de gala mais danoo faroon di gis dîner de gala ministre dîner de gala impôt et domaine waaye nag artistes yi ñooy dîner gala ñëw nag élégant trop ah waaw euh, je le sais parce que ma mère me moo tax euh, keneen ku ma ko wax daf may dollil rek ma tooga nag sama jigéen ma um, dafa yàgg laj joor dañ ko woo ni ko loo bokk tubaab bi mu ni longtemps kii danoo longtemps mu toog ak doomu ndeyam toog nii maawa toog nii yow nga muy interviewé waa jeex na waay si jeexee jeex na kontaan na mais mën nañoo xam Gueye teraanga ci yan projet la ne projet yu baree baree baree bari ñu ci dee ba ñaar am na buy waaj a génn bu tudd Rëbëjoo dina génn ci YouTube Prestige Thiès ak sunu yëf set jabar laa ci am. set nga wax set jabar laa ci am. dina génn incha allah très prochainement léegi rek ban annonce bi mi ngi commencé daw dangay ñëw Thiès nag ñu yaatal. ñu def ñu def interview bu yaatu ñu waxtaanee ko. Adja ku la laal wax ma ko. yow xam nga ni dem bërki dem bëgg naa la tey dama laa bëgg suba dama lay bëgg. ak leer jeex na. merci. maa ngi ci xale bu féroce xale bu doy waar xale bu lumbe Sénégal ñu koy wax ka Nadège nekk ci film Mariama di ko toj waa Nadège lan la lan la yow yow lan la yow est-ce que mën nga may nit ñi jàmm Nadège jàngil ngay jaay ay fer ci classe Nadège lan mooy sa problème yow. waaw kuy sa mag Aya nu la neex mel. yaay sama mag yaa ma tey te dëgg neexul. jàngal ma baax. dalal ma aar ko. yokku ma fit ne boo demee liggéey du dëgg. comme que personnage bi ni ñi ngi ciy wax rek ça se réussir na. loolu yëpp nag dañ leen koy sant yéen sunu mag yi nga xamante ne bañ leen fekkee arko ko siisoo leen ñu xataloo leen ñu jaajëf rek laa lay waxaat. macha allah euh, nañu xam lan moo waral sa teewaay ci festivalu Keparu Maam ren di septième édition. waaw ren di septième édition di première édition ci man parce que ku ma xam-xam ne mosuma ñëw festival Keparu Maam mhm. waaye euh, mu nekk festival doon jaay star ba daawoo dem ci festival wala dañ la dul invité. dama mosul am chance su fekkee ko. ren nag yàlla dogal ma am chance bi ma koy sante yàlla ndax gis naa mag ñi ah xam-xam bi dooleeku na amaana gis nga ñoo xam ne dañ leen daan seetaan ba nga nekkee tout tànk sa xol di set nga naan ñi dama leen bëgg te yàlla dimbali la ba nga bokk ak ñoom jotaay. beneen bi soppe di sunu papa di suñu maître di sunu xarit ba bëggal ñu boppam xam nga lu baax lu mu am ne pour ñun la xale ar ko kon su xewlee dañuy jël lépp tëj kër ga ñëw nekkal ko fi ba mu neex yaa ma est-ce nañ xam na des ci yan projet la nekk à part Mariama projet yi moom bari na. mais man je préfère ngeen xaar ko rek yaa ma gën a xam. mais day ñëw nii nii nii nii. yàggatul daal yàggatul. déedéet projet yi. te mënoo ñu koo dee ci bantele télé. non non surprise mooy dàq. yow xam nga ne bu ñëwee day cartonné rek kon nañ ko xaar. kon macha allah merci. ma ko ko sañ nga. merci beaucoup yow itam gis naa la sañ nga bu baax. waaye est-ce que mën nañ xam euh, lan moo waral sa teewaay ci keppaaru maam. waa keppaaru maam nag euh, dama ko doon dégg rek mais mosuma see ñëw nag. mais tey nag bi ma ci ñëwee ah gis naa ci jàngale gis naa ci euh, macha allah daal toppatoo nañ ñu teral nañ ñu daal te jàngale bi tam mat na macha allah neex na trop trop trop. est-ce que mën nañ xam sa relation ak Ibrahima Mbaye Sopé. waa Ibrahima Mbaye Sopé tam bi ma ko xamee yàggul. mais tamit bu baax la ma wan bëgg ma ma itam ma delloo ko ko. mu respecté ma lool man itam ma respecté ko macha allah ku baax la. baaxee boo li nga dem non non xeebu ma ko macha sañse nga. waaw yow gis naa la ci wet gi <laughs> macha allah. nekk nit ku baax nag nit ku yaatu nit koo xamante wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe àdduna te lu baax la bëgg ndax lu baax moo waral lii yëpp am kon moom ñu ngi koy ñu ngi koy souhaiter bonne ñu koy ñaanal. Euh, at bu jot mu koy def ci kàttanu yàlla. non non non bul tiim lekk man ni ma ko mën a waxee rek naa koy waxee. nangul naa ko ko dama ko koy nangul dama ko koy nangul. nangul naa la kon ba déwén ak jàmm rek. mais sañse ngeen xam ngeen ko. yow kenn wala de waaye li def nag yow nii rek yow. maman ma sañseen barki démb la jóge Turquie moo ma solal lii. <laughs> waa Fatou Gueye ci maa ngi nii Adja. waay la grande comédienne waa naka projet yi Fatou Gueye dañ la gëj a gis ci kooru ñaankoo lan la lan la. dara dañuy liggéey rek. ah yéen a ngi liggéey waaw ñu ngi liggéey ñu ngi ci job bi xaar ci leneen. waa ci yeneen facette. mais lan nga gis ci Djiné Dagala bi Fatou. kontaan nee naa la keppaaru maam tardé ko wóorul. Mhm. nee naa la chaque année ñu ngi koy def. Mhm. chaque année ñuy baaxantal saa yu ñëwee na gën a neex. Mhm. maa ngi gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëmaale waa arko arkot si Pikine mm-hmm. jàpp nañ ci combat bi mm-hmm. di gërëm tamit soppe mbay mm-hmm. soppe moom initiative bi mu tëral ba keppaaru maam saa yu jotee ñëpp bàyyi seen itte yëpp ñëw fii ci bés bi am na lu ko waral di ñaan nag muy gën di yokk rek di gën di yokk ñoom ñu ciy gis seen bopp loolu lañ leen di ñaanal macha allah de mais sañ segeen de damaa toog a koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi ñu koy wax kan ñamaxit ñamaxit waaw ñamaxit tur boobu mën nañ xam foo ko jëlee tur libaane la turu libaane la ah turu libaane la waaw mais ñamaxit dañ lay gis ci Aba Show di la gis TFM mais ñamaxit lan la mën nañ xam sa relation ak Aba sa papa la ah, sama kilifa la sama papa la mhm. maanaam yéene ma lu ne mhm. waaw ñu baax mhm. léegi rek ba mu ñëwee fii moom fu ma fekk teral ma léegi nii rek jox ma xaalis bu bëri na na ma tàmbali sa tabaski mm-hmm. kon kooku am na foo toll ci moom mm-hmm. maanaam lu muy def da la ci woo mm-hmm. loolu ni ku baax rek mu ko mën moom moom du la indi fenn ba di la siis waaw mu ngi jàppale nit ñi nag bu baax a baax a baax bu ñu ko waxee bu ñu waxul waaw. en parlant de relation est-ce que mën nañ xam sa relation ak euh, Ibrahima Mbaye Sopé ki waral festival bi. borom festival bi day xaritu ñëpp. maanaam doo dégg mukk mosoo dégg ñu ne mook artiste bi dañoo jote mhm. li mu sekk ñëpp laa sekk moom man nag man man mun naa ni ren ji mooy sama sama sama première fois ma ñëw fi mhm. waaw te euh, bokk ci bokk ci invité d'honneur yi si bis bi mhm. kon daanaka damaa ñëw si ñaari wàll benn bi muy sama kilifa ñu boole ko ci bis bi ñaareel ma ñëw sama ñëw bopp kon damaa ñëw ñaari ñëw waaw kon Aba bu ñëwee kon damay topp ci délégation Aba man mhm. it damay ñëwaale sama ñoom bopp mhm. mu ngi noonu. mais lan nga gis ci euh, diine bi daal. lan moo la ci impressionné. waaw diine gala bi ah rencontre ngay rencontre artiste rek. Mhm. doy na sëkk ndax daje bi dafa raar maanaam boo leen gisee da nga gisaat yee beneen beneen couleur nga gis sunu papa yi nga xam ne ñu la toogal man dama bëgg ay mag. dama bëgg mag ndax ndax damay bëgg peut-être di di am lu ma sàcc ci ñoom wala lu ma jariñ ci ñoom man fu ma dem damay xool fu mag ñi ne ma dem fa mhm. man nu laa dundee est-ce que ñamax mën nañoo may lu ndaw rek léegi ngeen gis dara léegi nii waaw léegi ngeen gis loolu mos a gis ah, kon nañ ko xaar ndax yéen waa seen dama leen dama leen fental waayu bees tàkk waaw léegi ngeen jot ko ci léegi incha allah léegi kon euh, salaamaaleykum sama yaay Rama Thiam maaleykum salaam sama nee ne tuuti. waaw ñu ngi laa ziar bu baax a baax euh, di la laaj euh, sa présence ci keppaaru maam lan moo ko waral. waaw xam nga keppaaru maam tur wa dafa wuyu boroom ndax su ma yeboo ne ñi ma toogal samay sët lañu kon ma ñëw toog ci sama keppaar uuf samay sët mhm. li ko waral nag mooy. suñu doom yi ak suñu sët yi leen di ñaanal yàlla ñu ëpp seen succès ëpp suñu bos tey ma di leen ñaanal yàlla ñoom ñëpp yàlla nañu egg ni yoon barkalla macha allah. waa yaay mën nañu xam sa relation ak Ibrahima Mbaye Soppe. Ibrahima Mbaye Soppe doom la xarit la Ibrahima Mbaye Soppe. fonk na nit am na yar am na teggin Ibrahima Mbaye Sopé fonk na ay moroomam fonk boppam ndax tubaarkàlla macha allah lii tey di septième euh, euh, kii bi vraiment melokaanam rek moo ko may ndax xale bu ndaw sax mm, Ibrahima Mbaye Sopé da lay jox cër. rawatina nag ñun ñi nga xam ni ñun ñooy yaay yi di maam yi muy waxak ak ñun di jëf ak ñun di ñu teral tey jii nag ma bég lool ndax samay càmmiñ a ngi fi mu ñoom uh, Mamadou Dia Papa Demba Ndiaye Papa Demba Lam ak Papa Demba Daaray Kocc a Seydina Ma Njoon Laay a ngi fi Mamadou Pène ak boole ci Maodo Diagne ndeysaan ak Matar Fall tey jii jamonoy tey daaray Kocc dañu ñëw gunge seeni doom suñu doom yi nag yàlla nañu egg ni yoon loolu lañ leen di ñaanal. waaw yaay booy ñu gis ni daaw benn jëmm nekkoon na fi te nekkatu fi muy Père Demby euh, est-ce que mën nañu xam lan la la def ren. waaw euh, sànq rek bi ñu nekkee prison. dañoo def ba pare ma jóg ndax booba xol tooy na rankoñ a ngi ci biiri gët te génnut ndax bañ koy def daaw ñoog moom la woon waaye nag kulli nafsin saayixatil mawt bakken bu ñam dund dana ñam dee te ku sa waxtu jot nga dem waaye Fall defe fi lu tax mu war a dem ñàkk fayda taxu ko dem ñun ñi fi desit fulla taxuñu fi toog dem bi ku mënoon bëggal àddina ah fu mu mënti toog ku fa ne ree rek ngay def stress boo mën a am dem dina la ko dindil tubarkalla macha allah ku sa ndaa fees nag nga dem yàlla na àpp sore yàlla may ñu ci daraje Seydina Mohamed yàlla na ko li mu daan bégle yàlla na ko loolu teeru fa mu ne ci daraje Seydina Mohamed jërëjëf jëf waaw waaye damay gërëm it su ma nee ah, ki nga xam ne mooy Ibrahima mbay Soppe damay gërëm tamit kii nga xam ne moom mooy Leyti Fall Leyti Fall ak Ibrahima mbay Soppe du ñu ñaar kenn lañu waaye ya xam yëf yi nag dafa gën neex ndax xam nga lu tax dama ñëw te sa fekk sama doom ju ñu naan Elidia l'enfant chéri de Yaraax Elidia ku baax ku yaru ku fonk doom aadama ku fonk nit mais nag dem naa ba seen kër seen kër la ko doore door a génn ci biti sama doom yi daal lafcat yàlla na ma leen yàlla sàmmal yéen ñëpp yéen ñu jigéen ñi amin ñu jigéen ñi ku ci am jëkkër yàlla na la yàlla jubaleeg moom ku ko ci amulit yàlla na la ko yàlla may te nga yëgal ma waaw kii de daa mel nii yaa njaw siise la la grande comédienne nekk Arcos Pikine yaa njaw lan moo waral sa teewaay fii ci keppaaru maam ah, teewaay bi xam nga ni chaque année moo am kon buñ ko defee war na tubaarikàlla mu doon suñ papa suñu xarit suñu xaritu papa ndax mënoo bëgg sa papa ba pare bañu xaritam ku xool ci Leyti Fall mere ñu mu uuf ñu nag comme ni ñu prési uufee comme ni ñu Leyti Fall uufee njabootu Leyti Fall du ñu neenal du ñu ñàkkal fayda fu ñu fekk jox ñu suñu doyuwaay. màggal ñu jox ñu loo xamante ne peut-être sax nekkul ci ñun. looloo tax lépp lu ñuy jàpp rek dañ koy bàyyi ñëw passé ko ak artistes yi. dafa neex daal lii nii rut lii nii dafa neex trop. maire yi yi fii waaw loolu dafa neex dafa gëj a am. vraiment waaye. léegi yow comme parlant de dafa neex yow lan moo la gën a neex daal ci diine bi. ci diine bi diine bi aya ah vraiment nag dara neexagul de. <laughs> luy loolu yow. entrée kase ñëw. mais sorti dina ñëw. boo gisee entrée kay ah. ñëw. ak yenn spectacle bi vraiment spectacle de qualité yoo xamante ne dañ koy yàgg a xaar parfois da ngay manqué yenn spectacle yi mais keppaaru maam vraiment dañ leen di wax jaajëf. comité organisation bi vraiment ñoo ngi leen di remercier ndax indil nañu ay spectacle yu neex macha allah spectacle yoo xamante ne ñun boo demee boo ñëwee ba fii sax reeroo reer nga ci spectacle yi ndax ñun looloo ñuy dundal création yu baax lañ ñu indil merci beaucoup macha allah waaw